الحمد لله الحمد لله الحمد لله ñoo ngi woon ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ñoo ngi sant yàlla moom Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane nee na inna ashaabana laa yadxuluuna almahshara maa annaasi wala yazuquuna mashaqqatan wala yarawna mihnatan min taxmidi ayunihim ila alistiqraari fii illiyin mu ne man sama taalibe man man Cheikhu Tidiane inna ashaabana sama taalibe yi laa yadxuluuna almahshara ma annaas bésu pencum yàlla duñ dugg ci mbooloo mi fa ñuy dajale mbooloo mi pour ñu àtte leen ñoom duñ bokk ci mbooloo mi hmm? mu ne ñoom kay eh, wala yazuquuna mashaqqatan duñ mos coono taalibe tiijaani bésu pencum yàlla duñ gis jafe-jafe yi mm. wala yaraw na mihnatan ba léegi duñ gis métit ak njaxare min taxmidi ayunihim fañ sukuraatee dee bañ gëmmal seen bët yi ilal istiqraari fi illiyina ba ba ñuy dugg ajana illiyina duñ gis jafe-jafe ci diggante bi mm. danaka jekki jafe-jafe yépp mooy ba nit ki deeyee ba muy dugg ajana fa falay jafe-jafe yi ndax yonent bi nee na juróom-ñaari bunt ñoo jaar diggante nit keek ajana benn bunt bi bi ci gën a woyof mooy dee bi ci gën a tar mooy taxaw kanamu yàlla fekke ñañ tooñoon ñoo ngi téye ca yëre ñaloon tooñoon des yàlla àtte leen yëre amu fa sax xanaa ñu téye seen loxo yi ndax bés boobu ku nekk ne la yàlla jure woon noonu ngay kama badaana awwala xalqin nu'iiduhu waaw bésu peccum yàlla amul amul amul yëre kenn ku nekk ni la yàlla bindee woon soo deqee noonu ngay jóge mbaa ñu sa radiyallaahu nettal na ko ci jumaa ji boobu moo ngi tukki woon ñëw dugg ci jumaa ji julli ñaari rakka mu nettali waxtaan ba mu ne bésu pencum yàlla kenn du sol yére bésu pencum yàlla kenn du sol yére waaye mu ne nag waaye soo nekkoon ne da ngaa jël sa benn yére boo bëgg sarax ko sa mbokkum jullit bésu pencum yàlla yàlla dana la suturaal ba kenn du gis sa awra bésu pencum yàlla hmm. mu daal summi mantoom gi jox ko Amadou Thiam kamma ahmadou thiama kayya bussal ilma kada rabbani nafuhu amma waaw rek wan la ne soo wa digalee dara jiitu ci waaw wa innaka isma taati ma anta amirun bihi tulhiman iyahu taamuru atiya way kat bi ne ne wa innaka yow isma ma anta amirun bihi soo indee la nga digle tulhiman iyahu taamuru atiya da nga fekk kan digal tamit def ko lu mu digal moo ci jiitu mu ne sama taalibe yi ba si pencum yàlla maanaam Cheikhu Tidiane nee na taalibeem yi fañ deewee ba fa ñuy duggee àjjana duñ gis benn jafe-jafe te jafe-jafe yëpp foofu la waaw mooy bu njëkk bi dee bi mboobu moo cee gën a woyof dee bee ci gën a woyof hmm? ñaareel bi dañ lay dugal sa bàmmeel laaj la man rabbuka man ngaa tontu man ngaa ñàkk a tontu te foofu mbir la ndax ña lay laaj ñëw na ci hadis na ñoom seen dañoo wegu dañoo tiitlu soo leen xoolee dangay ngay tiit ba ñoom su ñuy wax sax safar day génn seen gémmiñ ñu lay laaj nag di la wax man rabbuka kuy sa borom ay laaj yu bëri lañ lay laaj waaye booboo jiitu dañ la laaj sax loo wax ci yàlla Muhammad fekk yonent bi ngi yow ci bàmmeel bi ne la maata maata fi hada rajul loo wax ci góor gi fekk rasulullahi maaka fil qabr beneen bi gis nga da nga jéggi siraat jéggi siraat la danañ peese sa bon ak sa yu baax foofu mbir la danañ la jox sa téere mbaa nga jëlee ko sa ndeyjoor wala nga jëlee ko sa càmmoñ soo ko jëlee sa càmmoñ loolu problème la soo ko jëlee sa ndeyjoor nag santal yàlla xamal ne ci nitu ajana yi nga bokk kon bunt yooyu yëpp ñoo ngi foofu waaye Seexu Tijaan nee na bunt yooyu yëpp man sama taalibe du ci gis benn jafe-jafe du ci gis benn problème min taxmidi ayunihim ila al istiqraari fi illijin mu ne bañ dëmmalee seen bët yi fañ deewee ba ba ñuy ne carax sa biir ajana amul benn problème bu ñuy gis Seexu Tijaan ko mu ne inna ashaabana yawma alqiyama laysu ma annaasi fi lmawqif sama taalibe yi bisu pencum yàlla du nekk ak nit ñi ca jotaay ga bal hum muktanifuuna fi zilli l arshi fi mawdiin wahdahum yàlla def leen di dajale ci ron keeru arsh bi ci benn place boo xam ne ñoom rek xam nga ron keeru arsh bi yàlla ga am na ñu bëri ñu fay daje bokk na ci imaam gu bokk na ci koo xam ne su demee jàkka xol bi day def sa jàkka ja ba mu dellu siwaat ca jàkk ja mm-hmm. bokk na ci koo xam ne toog na moom kenn di xalaat yàlla ba bëtam sànni ronko te loolu maqaama gu jafe la toog yow kese rek di xalaat yàlla rek ba nga jooy ñaareel tey jamono koo gis mu jooy rek ay bor yu bëri ka lay jafe-jafe jamono bëgguloo jotul rek waaye toog rek di xalaat yàlla rek rajulun zakara allaha xaaliyan fa faadat aynaahu min addam toog rek di xalaat yàlla fekk yow kese la ba nga sa bët sànni ronkoñ loolu ma xama gu jëfel ak koo xam ne rajulun daat humraatun zaatu mansabin wa jamal fa qala inni axaafullah koo xam ne jigéen boromu taar woone la ci mooy yàlla nga ne ko ragal naa yàlla ñooñu ñëpp ak rajulun tasaddaqa bi yamini fa axfaaha hatta la taalamu shimaluhu ma tunfiqu yamini mu ne nit saraxe ci am nëbb ko ba càmmoñ bi xamul lan la ndeyjoor bi saraxe ñooñu ñëpp ci ron keru arasug yàlla gi leen di yàlla di dexe waaye nag taalibey Cheikh Tidiane nee na fii mawdi wax wahdahum la wax ci biir ron keru aras am na fa benn place bu ñu leen réservé ñoom kese ñoo fay hmm. dugg keneen ku dul ñoom du dugg ci place boobu xam nga loolu yi beneen maqaam la fii mawdi in wahdahum soo déggee wax hmm. fii mawdi in ci benn place goo xam ne dañ ko réserve pour ñoom wax wahdahum ñoom kese keneen du leen rax ku dul Tidiane xam nga <laughs> maqaama gu kawe la hmm. nga soo deqee bésu pencum yàlla tijaan yi ne yëpp ku jëg bésu pencum yàlla dañuy bindi sa ji haada muhammadi yu kii muhammadi yu la malaaka yi dañ lay xàmme ku la gis def lay respect jox respect ba nga yegg fa nga jëm hmm? mu ne wala yaqdumu alay wala yaqdumu alayhim ahadun fi duxuli janna illa sahaba kenn du leen njëkk a dugg àjjana dul sahaba yonent yàlla muhammad ashaabu rasulillahi rek ñoo leen di njëkk a dugg àjjana te innahum la yazuquuna xaraarata al te ñoom sama taalibe yi duñ mos tàngoorub dee mooy tàngoorub sukuraat te tamit nee nañ soo saxoo soo saxoo assalaamu aleyka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatu téeméeri yoon ah chaque jour def ko benn téeméeri yoon assalaamu aleyka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatu nuyu naa la yow yonent bi mm-hmm. loolu rek soo koy wax téeméeri yoon chaque jour benn yoon téeméeri mm-hmm. sooy dee doo yëg tàngooru dee da ngay gëstu rek fekk yegg nga ca yàlla subhanahu wa doo am benn problème si dégg nga wax te xam nga ñun tijaani dañ koy def ndax ku fi tarbiyu ñi tarbiyu laa wax waxuma xaamin ndax ku fi tarbiyu suñ la joxee maqsad maqsad bu njëkk bi mooy sirru fatiha bi ñu joxaala sirru salaatul fatiha dañ lay jox sirru ziyaara secret Cheikh Ahmada Tijaani bi saa boo defee laazim rek suba ngoon da nga wax asalaamaaleykum ay nabi wa rahmatullahi téeméer yoon yow da koy def sax ñaari téeméer yow ñaari téeméer fois eh, ci ci bés bi xam nga loolu ngeneel la gis nga nag loolu mu Muhammadul yi nettali na mu ne Cheikh Ahmed Tidiane daawul woon teqalikoog loolu chaque jour day def asalaamaaleykum ay nabi wa rahmatullahi wa barakaatu téeméer yoon mu ne mu daal di ko nettali mu ne ku saxoog lii doo yëg tàngooru koo koy Cheikhu Tidiane yi ñoo ngi ñaan yàlla yàlla dugal ñu ci zumrati ashaab yi ci taalibe euh, ñu ba bañ xëy génn àdduna benn borom xam-xam wali yàlla ndar la nekkoon ndeysaan moo doon wax man dee ci Tidiane moo ma gënal dee ci lislaam <laughs> waaw man du ma ñaan dee ci lislaam naa ñaan dee ci Tidiane yi xam nga loolu waxin na def la bugg a wax ne kenn mënul dee ci ci tiijaan yi te deewoo ci lislaam waaw kenn mënul nekk tiijaan te nekkoo jullit il nga doog a nekk tijaan kon bu boobaa yal nañ yàlla re ci tijaan yi mooy firnde yal nañ yàlla rey rek ci lislaam mu ne nag Cheikhu Tijaani am na benen kado bokk na ci karaamaatam mi ne wa qiila lahu fi lxaybi haada ataauna kamal ibni daawudin alayhi tahiyati Cheikh Ahmad Tijaani dafa toog ci xaybu rek bañ woo ko léegi ki ko woo nag lañ xamul yàlla la wala yonent bi wa qiila lahu ñu ne ko fi lxaybi boobu moo ca xaybu ga ñu ne ko haada ataauna Ahmad Tijaani mu ne ah ñu ne ko lii sama may la man maa la ko may hmm. hada ataw na fam nun su nga mayee ci aw am sik wala la neexee nga denc tiye bañ cee maye bi xayri hisaabin du ma la ci laaj dara ëllëg kamal ibni daawud comme na ma ko waxee woon suleyman ibnu daawud yonent yàlla suleyman alayhi salaam xam ngeen loolu la ko yàlla wax ci alquran yonent yàlla suleyman yàlla def ko ne hada ataauna fam nun aw am bi xayri hisaab hada atauna famnun aw amsik bi xayri hisaabin yàlla moo ko waxoon yonent yàlla Souleymane yonent yàlla Souleymane yàlla def ko may teraanga gu rëy goo xam ne daanaka néew na ci yonent yi ku ko am ndax moom la yàlla may mu nekk malik buur goo xam ne moo nguuru adduna gi yépp ci loxoom la tegu woon ci jamono yonent yàlla Souleymane mu nekk tamit nabiyu nekk mursal nekk woy solu nekk tamit yonent gu yàlla yónni nekk doomu yonent doomu buur ndax yonent yàlla Daawuda tamit buur la woon yonent yàlla yàlla mu ne maa ko may al mulka wal xikmata wa allamahu mimma yasha moom Souleymane bokk na ci ñu yàlla xamal baayam Daawuda bokk na ci ñu yàlla xamal ndax yàlla moo ñu nettal ci alquran ne wa allamnaahu san'ata labusin lakum yent yàlla Daawuda maa ko xamal nan la ñuy liggéeyee mbubu koom-koom man maa ko jàngal yent yàlla Daawuda yent yàlla kii Lukmaan nee nañ yonent la nee nañ ci yonent toog na ci palaasu yonent yàlla daawuda yonent yàlla daawuda ngi ràbb mbubu koom-koom yi mooy yi ngay xeex yi ngay sol sooy xeex jihaad sooy xeex ci yoonu yàlla wala xeex rek fekk suñ la jamee du la dal mbubu koom-koom yooyu la doon ràbb moom waaw mu toog gis waa ji di ràbb yonent yàlla daawuda di ràbb mu bëgg a laaj mbubb yi moom lii pour lan la mu daal noppi ba ci yàgg naa xaaral ma noppi rek xëy na dana dana ma ko wax daawuda ba mu ko rabbe ba pare nema dir u salih mu ne nema dir u salihu li rajulil mujahid mu ne est-ce que kom koom gu baax a ngi ni ñeel góor gu bëgg a xeex ci yoonu yàlla Luqman ne aha ndeke de gis nga gaawtu di laaj sax soxlawu ko soo noppee rek léeg-léeg la nga bëggoon laaj dañ la ko wax hmm? yonent yàlla daawuda moom yàlla xamal na ko waaye xamal na tamit doomam Souleymane Souleymane nag nguuram a gënoon yaatu nguuru baayam <coughs> baayam moom amoon na juróom-ñeent fukki jabar ak juróom ñeent jabar amoon na amoon na nguur moom waaye Souleymane junni jabar la amoon yonent yàlla Souleymane junni jabar la amoon moo tax gaa yi euh, ŋàññi fi rasulullah ñuy wax ne dafa bari woon ay jabar yaakaar naa gisuñu woon yonent yàlla Souleymane hmm? yonent yàlla Souleymane amoon na junni jabar yàlla ko mayoon nguur goo xam ne mayu ko kenn mu ne habli mulkan laa yanbaghi li ahadin min baadiya Souleymane moo ne yàlla may ma nguur goo xam ne keneen ku dul man du ko am yàlla may ko nguur macha allah ba gis ngeen Souleymane mus naa leen nettali benn histoire dafa toog ba ne yàlla benn bés may ma ma dundal adduna gi yëpp ma dundal leen at xam nga kooku nguuram rëy na ku nar a dundal adduna bi yëpp at nga xam ne hmm? nga xam ne dundal adduna bi yëpp du du caaxaan yàlla ne ko attanoo ko mu ne may ma ma dundal leen weer weer woo xam ne ñoom ñëpp ci man la ñuy dund yàlla ne ko attanoo ko gis nga mbindeef mi pour nga dundal leen benn fan lu jafe la kon ci ngay delloo nguur gi ci yàlla nga xam ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha yàlla ba mu waxee ne amul lenn lu nekk ci ron asamaan di dox ci kaw suuf lu dul wërsëgam man la war boobu lañ ko sumil chapeau ñu xam ne yow rek yaa yàlla keneen ku dul yow mënul loolu te alaa la wax kalimatu ilzamin alallahi man ci man la war xam nga yàlla jël dara waral ko ci ko am ne man la war illa alallahi rizquha ki dégg nga wax bi de hmm. xam nga loolu mbir la hmm. moo tax benn <laughs> benn góoru yàlla moo ngi waxtaan ak benn waay ah waa jooju ne ko man ajjana du ma ci sonn waaw eh, su nekkee ne nar naa faa dugg rek yàlla su ma fa sóoraale rek danaa fa dugg waaw mu ko ah, mu ne ko mu ne ko yow pourtant sans boo xëyee da nga loo lekk doo wax ku la yàlla naree may lekk rek da nga lekk te lekk ba ba koy yàlla di def ne ala kalimatu ilzamin moom la war daf ko waral ci ko am par force ne dina la dundal yow waaye waxul dina la may ajana par yow sans boo yeewoo la yàlla warlul il faut nga dem wutali ko sa bopp lam la warlul nag nga ne su la ci sóoraalee dañ ci am jógal liggéey yaa ngi dégg mhm. ala annahu ah bi risqi kaffala nafsahu li kullin walam yakful li kullin bi jannati mu ne warlul la ñëpp wërsëg waaye warlulul ñëpp ajana ndax la am la anna jahannama minal jinnati wan naas ndax moom moo ne waat na ci màggaayam moom bésu pencum yàlla dana feesal safara loolu la wax kon am na ñoo xam ne safara la ñu direct yonent yàlla Souleymane moomu ba mu waxee loolu yàlla yàlla ne ko mënoo ko mu ne ko kon yàlla may ma semaine yàlla ne ko mënoo ko mu ne kon may ma ma dundal leen benn fan ko yàlla ne ko bismillah essayel waaye xam naa ne mënoo ko nee nañ daal tàmbali na di togg ay weer ñuy togg ay weer di dajale pour bés boo xam ne convoqué na mboolem mbindeef mi bés boobu su ñëwee ci moom la ñuy añee ay weer ñuy togg di dajale ay weer ñuy togg di dajale di weer yaa ngi dégg di defar ba bés ba ñëwee ndeysaan ñu dajale yaa ngi dégg de fii fadaay sahara àll gi kenn xamul fu mu tàmbalee ak fu ñu rangale lépp nag Suleymaan woo xam nga xut bu la woon xam nga nabiyu la woon mhm. xam nga mursal la woon su bëggee wax ak kaw nu gépp mën na wax ak ñoom ndax soo toogee ci maqaamu xutbaan yi melentaan yaa ngi dégg bi te mhm. Australie melentaan suy dox yaa ngi dégg tànk yi fii ci Mermoz waxuma la wala kaw mhm. ki dégg nga xam kon loolu biir la <laughs> moo tax su leen bëggee woo dana mën a wax ak ñoom mu wax ak ñoom mu woolee ñoom ñëpp ñu ne fi tey seen wërsëg yaa ngi dee bésu sàngam fii la fii la ko yàlla def ci man ngeen di añ nee nañ riwaay bi nettali na ko hadis la xam nga hadis hmm? la nettali na ko nee nañ ba bës ba jotee am lu génn ci géej gi moo xam la li nekk ci géej kenn xamul dul yàlla mm-hmm. am benn xayawaan bu génn ci géej gi nam toll yàlla rek a ko xam mu ñëw nuyu Souleymane ne ko man de yàlla def ne woon tey wërsëg bi fii la <laughs> Souleymane ne ko waaw waaw fii la fii la tey du yow rek sax ak say farak <laughs> yéen ñëpp yi ngeen di invité ak lu dul yow kay macha allah mu ne dama doon ñëw seen mbir mi ndax normal na jaar na yoon wala am sax na xorom Souleymane ne ko bismillah te yaa ni nee nañ mbir ma waaj a nekk ci xaywaan bi nekk ci lal yi lañ toggoon ci weer yëpp mu lalli ko ci saa si lekk yëpp bam jeex mu ñëw ne Souleymane ne kon baax na maa ngi dem su heure añ jotee dinaa dellu Souleymane <laughs> ne ko sëñ bi mu ne mu ne ko liñ toggoon ci wéer yëpp nga yóbbu ngir yàlla soo dañ bul dellu ndax lañ toggoon te du yow kese adduna bi yëpp lañ ko toggaloon moom ci moom nga lekk moom nga lekk ah kon nga xam ne ne que Souleymane amoon na lu rëy yàlla moo ne ko haada ataauna lii sama may la fam sig aw am sig euh, fam nun aw am sig bi xayri hisaab li yàlla waxoon Souleymane foofu loolu nag moom la yàlla wax euh, yon euh, moom la yàlla wax wala yonent bi wax ko euh, Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu mu ne ko lii sama may la yow Cheikh Tidiane su la neexee nga téye su la neexee nga may hmm? mooy kamal ibni daawudin alayhi tahiyati gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bés lekk nañ ndox ak tàndarma bañ suur moom ak saaba yi tàndarma lekk tàndarma naan ndox bañ pare rek mu ne innakum sa tusaluuna an naimikum yéen innakum yéen tusaluuna danañ leen laaj an naimi haadal yawm bés bi bés bi xewal bi leen ci yàlla may mooy tàndar ma nga lekk ba suur naan ndox bésu pencum yàlla balaa ñoo jéggi siraat danañ ñu laaj xéewal gi te ba mu koy wax boobu ndox la rek ak tàndar ma léegi xadis yonent bi du tax ma indi ko mooy innakum yéen def ne innakum yéen tusaluuna danañ leen laaj an naimi haadal yawmi xéewalu bés bi xam nga moom génne na ci boppam waxul ñun dee danañ ñu laaj xéewalu bés bi xam nga lan la la bëgg a wax daf la bëgg a wax inna lillahi ibadan yii na yàlla am na ay jaam yoo xam ne jaamu sulaymaani yiina la ñuy ñuy dund ci maqaama suleymaan ñooñu yàlla du leen laaj ndax def leen ne fam nun aw am sik bi gayri hisaabi noo ko defee rek neex na ma ndax yaa ngi ci maqaama suleymaan kon yonent bi moo ngi ci maqaama googu est-ce dégg nga wax bi na Hmm? moom ak Abu Bakrin ak Umar moom moo njëkk a xiif ba sonn guddi la woon mënul tëdd mu ne na génn doxan di doxan toog dajeeg Abu Bakrin mu ne ah Abu Bakrin lan la abu Abu Bakrin ne dara man de damaa tëdd mënuma nelaw rek ngir xiif ma ne naa doxantu Muhammad ne ko loolu moo ma dal man tamit ñuy wër ba dajeeg Umar Umar tamit ndekete xiif a ko sonal mu génn guddi di wëraal ñoom ñett ñu daj ñu ne nañ nañ wóor fu ñu gis kër guy tàkk rek ñu xam ne boromam nelewul ñu dugg fa seet ndax am na lu fa des ñu dox ba gis benn kër ci këru saxaaba yi waa jaa ngi taal nelewul ba yonent bi yegg si moom ak Abubakar ak Umar waa ji ba mu leen gisee def ne yàlla mosu ko may xéewal gu toll bi guddi goo xam ne rasulullahi ak Abubakrin ki gën ci mbindeef mi ak Abubakrin ki gën ci mbindeef mi ginaaw yonent yi ak Seydina Umar hmm? ñoom ñëpp ñu ne jalañ sa kër guddi goo xam ne yow préparé woo mu kontaan ba mu ne nañu rey nañu rey gàtt ñu rey gàtt daal di ko mis wi defar ko ba mu baax ñëw tegal yoonoon bi ak Abubakar ak Umar moo ngi amoon giir ba ndox ndox ma ñuy seddal ci deru béy yooyu am na ndox mu ñuy dugal ci deru béy di ko seddal jamono yooyu xam naa frigidaire yi amul hmm? bañ lekkee ba pare mu xelli leen ci ndox moomu ñu naan yonent bi yàlla daal di wàccee ci moom summa la tusalunna yawma idin anin naim summa ginnaaw ba ngeen lekkee yàpp xar mi naan ndox mu sedd mi la tusalunna wallahi danañ leen laaj balaa ngeen jéggi siraat yawma idin bésu pencum yàlla anin naimi xéewal gi ngeen lekk fii fan ngeen ko jëlee xam nga nag loolu ndeysaan benn gàtt la ak ndoxu girba ala nag naka ñoo xam ne ñoo ngi tëdd ci ay milliards te dërëm bu nekk balaa ngaa jéggi siraat danañ la laaj fan nga ko dugal hmm? mais nag am na ay riwaay yi wax na yonent yàlla Suleymaan mooy mujjee dugg àjjana ndax bésu pencum yàlla dañ koy xisaab ndax nguur gam ñaanoon yàlla yàlla may ko yàlla mayoon na ko nguur goo xam ne def ne habli mulkan yow yàlla may ma nguur goo xam ne laa yambagi li ahadin min baadi keneen du ko am keneen sama ginnaaw ku dul ma innaka antal wahaab yow yaay wahaab yow yàlla yàlla may ko nguur googu moo tax ñu ne moom nit ñi dañ dugg àjjana quarante ans mu doog a dugg àjjana amin ci yàlla Souleymane hmm? ndax xéewal gi ko yàlla mayoon ci dégg nga xam si waaye nag xam naa du pour xisaab ndax fam ñu ne wam si bi xayri xisaabin la ko yàlla hmm. waaw àdduna waaye bi xayri xisaabin ci dégg nga xam bi de hmm? yéen ci yàlla Souleymane moomu la ko yàlla mayoon may na ko Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane waxuñu nubuwa gi waxuñu risaala gi waaye yàlla moo ko ne man maa la may lii xéewal gi fam ñu ne wam si bi xayri hisaabin est-ce que dégg nga wax bi mu ne wa shafaahu alkarimu eh, wa shafaahu rammuloona ko alkarimu yàlla mu tedd mi fii ahli asri ci ñooñu jamonoom képp koo xam ne dund nga ci jamono Cheikhu Tidiane yàlla may na Cheikhu Tidiane bésu pencum yàlla mu rammul moom Cheikh Ahmada Tidiane waaye nag wa ishrina aman ak yeneen ñaar fukki at zaada yu yokk baadal maniyati ginnaaw de ak su deewee vingt ans yi ci tegu képp ku juddu ci vingt ans yooyu ba su pencum yàlla yàlla may na Cheikh Ahmada Tidiane pour mu ràmm la ngeneel ah? la li mbir mi mooy benn bés Cheikh Tidiane dafa toog sax moom benn bés mu ne subhanallahi haadihi l xalaayiqu kullun yuqaalu juz min ajli mu ne na sellal naa yàlla haadihi l xalaayiqu mbindeef mi yëpp kullun képp ci ñoom rek yuqaalu lahu ñoo ngi koy wax bésu pencum yàlla juz jéggil siraat min ajli ngir man Cheikh Tidiane juz dugal ajjana min ajli ñii ñëpp loolu ba koy wax xam naa dafa tiim ñooñu jamonoom yëpp mu xam ne ñi ñëpp yàlla may na leen def leen def leen di ramm mu daal di wax est-ce que macha allah mu def mi kenn ku nekk ñoo ngi koy wax jéggil siraat doo am benn problème loolu yëpp min ajli ngir man la man Cheikh xam nga Cheikh Tidiane yi dafa toog benn bés rek mu eh, mu daal di wax ne shafaani llahu fi ahli asri min yawmi wiladati ila yawmi xululi ramsi yàlla may na ma may rammu sama ñoñug jamono bés ba may juddoo ba bés ba may dugg ci sama bàmmeel yàlla may na ma loolu xam nga léegi moom kenn xamul ñaata at lay dund kenn xamul moom xam nañ bés ba mu judd mooy atum junni ak téeméer ak juróom fukki at ci gàddaayu yonent bi mille cent cinquante ans ci gàddaayu yonent bi la judd moom quatre vingt ans la dund waaye ba muy wax lii kenn xamul ñaata at lay dund te góor yàlla yi nee nañu waliyu yàlla goo gis rek yàlla dana ko may téeméeri at yoo xam ne daf koy ramm góor yàlla yi mot yi ku ci dund rek yàlla dana la may téeméeri at yoo xam ne da koy ramm ci sa ja ci téeméeri at yoo xam ne moo xam dund nga jamono gi wala dundoo ko léegi li tax ma indi bi dafa am benn daqiiqa gu nekk ci biir benn nukta benn karaama goo xam ne Seydi Ali Harazim moo ko def xam nga Seydi Ali Harazim Mhm. moom la Cheikhu Tidiane di wax maa xallaftu si waa Aliyin Harazima mhm. mayuma kenn nekk sama xalifa lu dul Ali Harazim mhm. waaw kenn nekkul sama xalifa dama may kenn mu nekk sama xalifa lu dul Ali Harazim góor yàlla yi nag nee nañ Ali Harazim foofu day firi maqaama la ku yegg ci maqaama ga Ali Harazim yeggoon yaay xalifaam hmm? léegi Cheikhu Tidiane bi mu waxee lii kenn xamul ñaata at lay dund yaa ngi dégg de ba ñu xam ne kon Eh, jamono gi ñaata at la xam nga kenn xamagu comme que moo ngi ci ala qaydil hayaati moo ngi dund waaye ba mu ko waxee rek benn waay jóg ne wa ishrina aaman baadahu benn waay ci mbooloo mi moo jóg ne bi Cheikhu Tidiane waxee yàlla may na ma de naa ràmm sama ñañu jamono ba ma juddoo ba ba ma deewee benn waay jóg ne ak ñaar fukki at ginnaaw loola ginnaaw ba nga génnee àdduna ak ñaar fukki at mu ne foo jëlee wax jooju mu ne ko Seydi Ali Harazim moo ma ko waxoon xam nga boobu Seydi Ali Harazim gaañu na bu yàgg hmm? Sidi Ali Harazim moo njëkk a gaañu Cheikh Tidiane mu ne ko Ali Harazim laa déggoon mu koy wax mu ne yow yàlla may na la da nga ràmm sa ñooñu jamono ak yeneen ñaar fukki at Ali Harazim laa déggoon mu wax ko Cheikh Ahmad Tidiane noppi weddiwu ko waaw ah, mu ne ko d'accord léegi bañ xoolee moom Cheikh Tidiane quatre-vingts ans la dund waaw mm-hmm. ah, quatre-vingts ans la Cheikh Tidiane dund <coughs> quatre-vingts ans mm-hmm. gis nga quatre vingt ans yooyu soo ko limee mooy dajek al awliyaaw al awliyaaw baatu al awliyaaw walu yàlla yi yëpp al awliyaaw walu yàlla mooy quatre vingt ans kii moo tombé quatre vingt ans yi Cheikh ngi dégg baat boobu soo ko limee quatre vingt la moo Cheikh Tidiane dund quatre vingt ans kii dégg nga xam wala jawaratul kamaali jawaratul kamaali gis nga baat kalimaatu jawaratul kamal baat yi allahumma baat la salli baat la wa baat la ala baat la ayni baat la soo ko limee ba jawaratul kamal jeex quatre baat la mooy tombeeg dund Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu quatre vingt ans la Cheikh Ahmad Tidiane wa umru cheikhina ali fadlan wa mansiban hawa baha an kahla hawa baha an kahla mooy dajale dund Cheikhu Tidiane hawa làq moom Cheikhu Tidiane baha an taar ah, man man euh, mansiban mooy maqaama gu kawe ah, hawa baha an kahla hawa laq na baha an taar kahlan ba muy ndaw ah, kahlan sinil arbayin hmm. loolu mooy dundu Cheikh Tidiane hawa baha an kahlan soo ko limee moo lay jox quatre-vingt mooy dundu Cheikh Tidiane hmm. hawa laq baha an taar kahlan ba muy nekk ndaw hmm. ko dégg nga léegi nag liy firi lii karaama gi Ali Harazim def mooy mhm. kan moo xamal Ali Harazim ne Cheikhu Tidiane quatre-vingts ans lay dund ba mu ciy yokk vingt ans muy nekk cent ans mhm. yoo xam ne nee nañ góor yàlla gu nekk day am yooya mhm. est nga wax bi de mooy dafa mel ni kon Cheikh euh, Ali Harazim ba mu ciy yokk vingt ans boobu xamoon na ne Cheikh Ahmad Tidiane <laughs> quatre-vingts ans lay dund est nga wax bi de parce que Cheikhu Tidiane mu ne Cheikhu Tidiane yàlla may na ko day ram mu ñooñu jamonom waaye ak yeneen ñaar fukki at te wala yàlla gu nekk may nañ ko mu ràmm ñooñu jamonoom rek ñi ñi mot laa wax ñi yaa ngi dégg moom mu yokk ci vingt ans pour mu nekk cent ans yi nga xam ne moom shahir ah muy xarnu ndax nee nañ góor yàlla xarnu mooy téeméeri at ci kàddu gi gën a siiw mais góor yàlla gu mat dana dana ràmm xarnu ci jamonoom est wax bi mu ne wa fil jannatil ulya suñ duggee ajjana Mm-hmm. lahu moom am na moom Cheikhu Tidiane arbauna ñeen fukk min maqamati ambiyain min gayri ribati ñeen fukki maqa xam nga yenn wax yi dañoo rëy yonanti ñeen fukki maqaama yonanti la ñuy dajale ci ajjana solal ko Cheikh Ahmada Tidiane waaw ñoom nuuhu nga dajaleeg Moussa Yunusa yaa ngi dégg Ibrahima nga dajale ñeen fukki maqaama yonant nga solal ko benn nit te kooku du yonant

danañ def benn tirbin bu kawe yaa ngi dégg de teg ci Cheikh Ahmed Tidiane mu taxaw ca kaw turbine bi ci mbooleem bindeefuk yàlla yi rasulullahi jóg nag daal di wax ak adduna bi ne leen haada kii nii ngeen gis ci kaw ministre bi mooy turbine bi imaamukum mooy seen njiit wa haada mu middukum kii moo leen doon dolli ca kërug adduna boobu gisu leen ko xamu leen ko de mu ne booba Cheikh Tidiane mo nga bi aala ci kaw alminasati ca turbine ba ci kaw turbine bi Cheikh Ahmed Tidiane ngi toog <coughs> yonent bi fëll ca malawul ca ca ca ca malawul xashri bi ca mbooloo daj ga bis pencum yàlla mm-hmm. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daal di génn boobu Cheikh Tidiane nga ca kaw ñëpp a koy séen di wax kii kan la kii kan la ñi ko xamul woon mm-hmm. ah yonent bi jóg ne haza imamukum wa haza mumiddukum fi i dunia kii mooy seen imam kii moo leen doon dolli ca kërug adduna ah am na ñu ko ci xam waaye am na ñoo xam ne xamuñu ko ci woon ngeneen mën koo kawe moo tax borom munyatul murid def ne yasadu mimbaran min annuuri gadan yasmu bihil kulla sanan wa suudada ثم ينادي عند ذا منادي يا أهل ذا الحشر وهذا النادي هذا إمامكم وذا ممدكم في دار دنياكم بغير علمكم من يسعد دنا يك min baran min bar min an nuuri mooy tirbin bi tirbinu leer la lañ koy tabaxee leer ci leeru ko yàlla gi ah gadan bésu pencum yàlla yes mu biil mu kawe ci ñëpp amul koy tudd rek lu dul ci suuf yaa ngi de Samba ak Demba ci danan ngir kawe wa suuda dan ba ngir cangaay mooy nekk sang summa yunaadi inda za woo ginnaaw loolu mu naadin kay woote mu ne yaa ahla zal xasri yéen ñooñu dajji wa haada naadi yéen ñooñu mbooloo gi haada imaamukum wa za mumiddukum fi daari dunyaakum bi gayri ilmikum mun leen haada imaamukum kii mooy kii mooy seen imaam de kii mooy imaamu lawliyaa yi wax jee bari woon fële rek waaye waa jaa ngi ni wala mu middukum kii moo leen doon dolli hmm? am na ñëw ñoo xam ne ku leen gën a mën a fen amul ci kaw suuf fii ci àdduna lu nekk ñoo ngi koy wax waaye mbir ma suñ demee foofu dana leer la ñuy wax rek mooy wala mu middukum kii moo leen doon dolli woote ya daan leen daan woote yëpp yaa ngi dégg de mbir mi leer na fii daari duniyaakum si seen këru àdduna kii moo leen doon dolli بغير علمكم تلدوا الخسين خم خم يقولين كون خم لين نون مملة مرة ويكاد بني وفضله فاعتقد على الكل إنه كشمس الدهاء وهم كواكب ليلة وفضله انجني لك شيخ تجاني فاعتقد ننكو فرس تسخل على الكل نموغن يب كب يالا فك كدل صحابة يننتي أقول يننتي يالي يننتي يالي أك صحابي كدل نيونيو koo joxoñ rek Cheikhu Tidiane a ko gëm innahu Cheikhu Tidiane kay ka shamsi duha moo ngi mel ni jant yoor yoor waxum góor yàlla yi kawaakibu laylatin ñooy biddiw guddi xam nga nag biddiw naka jekk balaa moo mën a njëriñ rek guddi ñëw ndax moom balaa moo mën a leeral guddi ñëw bëccëg moom comme que jant baa nga fa hmm? doo gis leeru biddiw ki dégg wax bi de su paasee nag moom Cheikh tijani amul ku ci tegu ku dul Maulana Cheikh Ibrahim Niass. waaw mm-hmm. moo tax ca Taïba Niassène maa ko ne woon yaa ngi dégg de a Cheikhu Ibrahimu shamsu wilayatin fal awliyau bi nuurihi kal anjum mm-hmm. a Cheikhu Ibrahimu Baye Niass mooy jantug wilaya fal bi ci leeram kal anjumi ñoo ngi mel ni ay biddiw ah, ñoo ngi mel ni ci leerub Maulana Cheikh Ibrahim mm-hmm. su Cheikh Ahmad Tidiane paasee ja bul yaa ngi dégg kulli moo ci tegu yaa ngi dégg de li la koy wan nag li lay wan ne moom rek moo ci tegu mooy woy baytu bi muy ñëw ni bi muy wax woy ni mu ne fa aynuhu aynul ayni fafham isharati wa min faydi baari lana mustamaddati fa aynuhu jëmmug cheikh cheikh Tidiane jëmmam aynul ayni mooy jëmmug jëmm ga xam nga dafa am aynul ayni yaa ngi dégg am na aynul ayni am na aynu aynil ayni am aynu ayni aynil ayni kon aynu yi ñeent la rek waaw aynul ayni am na waaw xam nga aynu am na aynul ayni aynu aynil ayni aynu ayni aynil ayni hmm? suñ ne aynu jëmm gi gu njëkk gi mooy jëmm gi yàlla gi mooy xadratul zaati yonent bi su ñëwee ñu ne ko aynul ayni mooy jëmm jëmm ju njëkk ji ku dégg nga wax bi de Cheikh Tidiane ñëw ñu ne ko aynu aynil ayni mhm. Cheikh Ibrahim ñëw ñu ne ko aynu ayni aynil ayni mhm. loolu ci benn classe la benn maqam maanaam pour ayni nekk ñeent ndax ñeent ayni la yàlla indi ci alquran mhm. yàlla def ne fii ma aynaani naddaaxataani mu wax ne fii ma aynaani tajriyaani ñeenti ayni la yàlla indi aynaani ñaar yee tajriyaani aynaani ñaar yee naddaaxataani noonu la ko yàlla indee ci alquran <laughs> kon ñeenti ayni la mu dajale ko ne nag gaal gi gaalug maarifa billahi ñu hmm. misaalee ko gaalug nuuhu ci zahir hmm. yàlla ne gaalug maarifa billahi tajri moo ngi dox bi ayu ni naa ci sama ñeenti ayu ni yooyu génnul ñeenti ayu ni hadratul zati hadratul nubuwati hadratul wilayati hadratul xilaafati mooy ñeenti xaqiqa yi génnul wala boog benn bi jë bu jëmm ji njëkk ji mooy hadratul zati léegi bu njëkk ba mooy aynu mooy yonent bi yaa ngi dégg aynul ayni di cheikhu tijaani xam nga nekk na ñaari aynu ñetteelum aynu gi moo dajale la nekk ca ñaari aynu yële bay bàyyi di wax ara aynahu wa kay wa aydan ara aynayhi tushbihu aynahu jamalan fa hal tulfi li ahmada min sunya hmm. wa aydan gis naa ara aynayhi ñaa gis naa ñaari aynu aynoom yi moom yàlla gis naa ñaari aynoom wala moom yonent bi gis naa ñaari aynoom yi hmm. tushbihu aynahu ñoo ngi niroog aynoom gi hmm. ñaari aynoom yi ñoo ngi niroog aynoom gi ñaari aynu ñaari aynu yi mooy aynul xilaafati mhm. ak aynul wilaayati touche bi ñoo ngi niroog aynahu jëmmam ji moom yonent yàlla mooy aynul nubuwati mhm. jamaalan ci taar faal tul fii li ahmada min sunya est ce que da nga amal yonent bi saa sallam eh, ñaareel sunya hmm? mhm. léegi nag ay mooy ñeenti aynu la rek ñeenti aynu yi yàlla tudd ci alxuraan ñooñu rek ñoo fi nekk moo tax nag aynu ci boppam soo ko <laughs> aynu ci boppam soo ko calculé aynu ci boppam hmm? aynu ñaata la ay na soo soo calculé cent la cent xam nga benn ak ñett la rek hmm? rek mooy quatre rek mooy ñeenti ay nu la ci lañ la ah. waxuma la aynu bu soixante dix ah. aynu soo ko aynu aynun wa yaa un wa nuunun soo ko bas doo aynun aynu bi ak yaa bi ak nuun bi aynu bi soixante dix la nuun bi cinquante la yaa dix la hmm. muy cent trente nag mooy ñeent rek mooy ñeenti ay yi kon xamal ne aynoo ngoog aynul aynee ngoog aynu aynil aynee ngoog mais aynu ayni aynil aynee ngoog wa aynahu wa fat fa aynuhu aynul ayni fafham isharati wa aynuhu aynu Cheikh Tidiane mooy aynul ayni mooy jëmm jëmm ga mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fafham isharati déggal sama joxoñ moo tax fii nii mbiru joxoñ la rek Baye Niass nee na asix li ibarati fa inni lam abuh bi sirri habibi xalli anka sualiya mu ne su may wax del déglu ba asix del déglu li isharati samay junj fa inni ndax man lam abuh du ma feeñal bi sirri habibi sekki rek soppe ba xalli anka sualiya bëgguma nga may laajaat sama wax moo tax mu ne xam-xam déggal isharat yi loolu si waaju mm. kon dafa junj waa ji waxul dafa junj kon jëmmam ji mooy jëmmug jëmm ji déggal sama junj ji mm. est-ce que dégg nga wax bi de mm. kon sa xel dem ca ña xam junj yooyu ñu xamal la ko wa min faydi bahrihil anaam mustamaddati wa min faydi bahri ci faydu géejug Cheikh Tidiane al anaamu mboolem bindee mustamaddati lañuy dool dollee koo gis rek ci géejug Cheikh Tidiane lay dollee ko ba waa ji ne fa ma zarratun illa wa fasat bi ba pepp atome yi naaw sax waxuma la pepp suufi fekk suuf bi soo ko divisé par sept bay naaw ci kaw nga xam dafa woyof ba mënul laal suuf sax Cheikhu Tidiane koy dolli ciy faydo min faydi baari ana mustamaddi mu ne wax ji na waaye wala taatarid alayya bu ma weddi fii ma satartuhu li ma bind lii ma bind nii wax ko ci seex bu ko weddi de fa tujza kon dañ lay fay bi niiraanil mi safara jahannama al faziati yi ñaaw yu bon hmm? منفى فهرول واجد دفنه والله والله والله العظيم ومن أقامه هجة في الدين برهانا إن الذي قلت بعد من مناقبه ما زدت إلا لعلي زدت نقصانا وما علي إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن الحق بهتانا من والله جناش الله والله جناش الله والله جناش الله العظيم wa man aqaamahu hujjatan fi diini burhana ki ko woy nag mooy Fayruz Ubadi ki defar dictionnaire bi gën a riche ci arabe mooy Fayruz Ubadi hmm? Fayruz Ubadi Fayruz Ubadi yaa ngi dégg eh, eh, mooy ki defar qaamusul muhit dañ ko laajoon ci Ibn Arabil Haatami am na Ibn Arabil Haatami benn góor yàlla la am na ñoo xam ne dañ koy critiquer di wax wali waliyu la di wax yéeféer la am ñoo xam dañu ne wali bu màgg la xutbu la bañ ko laajee ci kooka mu ne maa ngi gën ci yàlla wa man aqaamahu hujjatan maa ngi gën ci yàlla mi def ibn arabil haatami hujjatan muy lay fi diini burhana inna allazi qultu ba mu waxee ba pare mu ne inna allazi ba waxee ci ngeneelu ibn arabil haatami mu ne inna allazi qultu la ma wax ci ibn arabil haatami baadun lenn la min manaqib yi ci ngeneel ya ko yàlla may ma zittu yokkuma ci dara nag illa li alli zittu nuqsaana saa bu ma ci yokkee rek dafa mel ni damaa wàññi moo tax lii ma wax nii ngeneelam la yu ko yàlla may lenn la ci ngeneelam yi rek wa ma alayya ida ma qultumu taqabi waaw ban bàkkaar mooy dal sama kaw su ma waxee loo xam ne moom laa gëm moom laa fas ci sama xol lii ñu doon wax ci Cheikhu Tidiane yi moom lañ gëm moom lañ fas ci suñu xol te moom la Cheikhu Tidiane wax te xam nañ ne lu mu wax rek yonent bi nee ne fa kullu ma qaalahu fa mutarjimun yeneen yonent bi moo ne lu Cheikhu Tidiane wax rek ci man la ko jëlee loolu nag Cheikhu Tidiane moo ko wax nekkul na yonent bee ko wax ñu koy jàng ci hadis yi de déedéet ah, xam nga ñun suñ dañoo am suñ fiqu tariqa goo xam ne yonent bi Cheikhu Tidiane day jëlee ci yonent bi mubasharatan loolu ñun Tidiane ñoo ko gëm ku dul Tidiane mën a gëm loolu moo tax léegi seexu Tidiane su ne yonent bi nee na ma yow sooy wax ak ku dul Tidiane du droit di ko wax yonent bi nee na ndax loolu diggante yonent bi ak Cheikhu Tidiane la te moom Cheikhu Tidiane du sëriñ moytu leen kon suñu nee yonent bi nee na fekkee ñun tijaani ñooy waxtaan ci wax goo xam ne yonent bee ko wax seexu tijaani ñu ne yonent bi nee na ñuy génn di wax yonent bee ko wax te ci keneen koo xam ne moom gëmul seexu tijaani parce que wax mm-hmm. moo ngi mel ni ngay wax ak chrétien bi rek nga ne ko yonent bi nee na parce que moom gëmul yonent bi parce mm-hmm. que dégg nga wax kon si wax kon li ñuy wax ne yonent bi nee na lu yonent bi wax seexu tijaan la waaye nekkul luñ bind ci téeri hadis ñu koy jàng ci ummal islam yi ci adduna bi yëpp mm-hmm. déedéet dégg leen loolu bu baax hmm? mu ne wama liñ fas mooy li Cheikhu Tidiane wax lépp dëgg la ndax yonent bi moo ko ne lépp lu mu wax rek ci man la ko jële hmm. mu ne wama alayya ida ma qultum taqadi da il jahula yazunnu alxaqa buhtana mu hmm. ne ndeysaan maa yërëm kuréel ki bàyyi ko mu yaakaar ne dégg ay fen la rek waaye lii may wax lépp dégg la yu ma jëlee ci yàlla est-ce que dégg nga wax bi da fayrul ubaad moo ko woyoon ci ibn arabil haatami waa ji indi ko nii li muy wax ci Cheikhu Tidiane yëpp dégg mu ne fa harwil gaawal fa harwil hmm? mhm. fa harwil ilahi maahu taslam min arrada wala taltafil li nisbatin aw maziyati fa kam min axin saddathu nisbatu jaddihi wa taalimu ilmin saara min aali xirati fa harwil gaawtul ilahi maahu jëm ci xadarak cheikhu tijaani nga jébbalu taslam nga mucc min arrada ci alkare mhm. soo bëggee xam yàlla mhm. soo bëggee yegg yàlla soo bëggee bokk ci wëliyu yàlla yi soo bëggee bokk ci góor yàlla yi gaawal da dem ci maqaama Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu wala taltafit bul gestu li nisbatin askan man doomu diwlaa ah aw maziyatin wala garaat wala daraja hmm? soo gestoo loolu ba mu tere laa ñëw ci Cheikh Tijaani tardé nga de yaa ngi dégg ala nafsi fa lépp ci man da umruhu fa laysa lahu minha nasibun wala sahmu mu ne fa kam min axin bëri na mbokk ca yàlla saddat wala ko gaaru ba ñëwul ci Cheikh Tijaani nisbatu jaddi day askanu ci maamam man man man doomu diwlaa diw mooy sama maam ba loolu tere ko yegg ci Seexu Tijaani wa taalimu elmin wala jàngalu xam-xam moom sëriñ la guy jàngale xam-xam gu siiw la borom daara la ba mu tere ko ñëw ci Cheikh Ahmada Tijaani gis nga ni mbir mi mel nii noonu lay mel nag ci faydu Cheikh Ibrahim Niass bëri na koo xam ne dara terewu koo ñëw ci Cheikh Ibrahim Niass mu tarbiyu lu dul ne man doomu diw laa wala moo boog man setu diw laa diw mooy sama maam ah mu nga gis koo xam ne borom daara la ñu koy woy borom daara mu am borom daara ju rëy yaa ngi jàngale am xam-xam ah rek euh, xam-xam googu kiiraay ko ba ba du ñëw ci saahibul fayda si cheikh cheikh alhaji ibrahima ñes tar bi xam yàlla ah waaye nag li ma bëgg a wax rek mooy li Malam Tijaani eh, seede ca Nigéria nee na fal yawma baabul fathi baabun waahidun mutafarriun yahdi bi gayri mashaqi looloy dégg fal yawma tey baabul fathi buntub ubbeku xam yàlla tarbiyu yegg yàlla baabun waahidun génn buntu la Cheikh Ibrahim Ñas la yàlla gas caabi mutafarriun tasaaroo na fu ci adduna bi yahdi bi gayri mashaqi soo ñëwee rek dugg yegg ci yàlla te doo am benn a nee naa leen ña doon tarbiyu jamono ju njëkk ja gis ngeen ñi doon am fanweeri at ci tarbiyu gis ngeen ñu daan am quarante ans ci biir tarbiyu loolu bi euh, Cheikh Ibrahim Niass ñëwee lañ géejee gis loolu ah kenn gisatul loolu léegi nit ki dana tarbiyu ci loo xam ne matul weer te fekk yaa ngi ci sa kër di tëdd sa lal bu nooy di lekk sa ceebu jën di naan sa ataaya di naan sa jus te fekk nag jamono jële gars yi doon tarbi ci àll bi lañ daan nekk xam nga lan lañ daan lekk xobu garab hmm? di di naan ndoxu dégg ya nekk ci àll bi di nekk gaynde yi tàngoor gi di tàng seen kaw sedd bi di sedd seen kaw ñuy sol ay der wala yu mel noonu fi mu ne nii jamono gi changé na Baye Niass radiyallahu anhu nee na wa ak wi li man kat xabbani kulla mahmahin ila alxadrati alulia walaw kuntu ramisa Baye Niass nee na man damay lem diggante taalibe gay uti yàlla ak diggante mag yàlla àll ga jaar foofu su nekkee ne àllaa nga fa man danaa ko lem ba yeggal ko yàlla yaa ngi dégg walaw kuntu ramisan doon te damaa junj damaa joxe donte dama la ne xëy nii rek est-ce que dégg nga wax bi yaakaar naa foofu ku xam dana fekk ah, àll mënu faa nekk àll sa digganteeg sa borom. Hmm? moo tax ñu bëri dañuy tar bii ba sonn na dañu yaakaar ne àll la fa ne àll fa koo xam ne moo la gën a jege sa bu mu xool naka jekk foofu àll war faa nekk waaw duy li man kat xaddani kulla mahmayin illa hadratul ulia walaw kuntu ramin mu ne bëri na koo xam ne li ko teree ñëw ci faydu bi rek man doomu diw laa doomu diw Hmm? te diwoowoo li diw diwoo woon <laughs> yow doomu diw nga te la diw diwoo woon ba nekk diw diwoo woo ko nga ne doomu diw nga bañ a ñëw pour tar bi xam yàlla <laughs> moo tax nag dañuy manqué xorom xorom dëgg-dëgg mooy xam yàlla nit su xamul yàlla sa xorom day manqué bu hmm. hmm? taalimu ilmin ak njàngale xam-xam borom daara la ba loolu tere ko xam nga léeg-léeg jàngale xam-xam ak mbooloo day tax nit ki du mën a summeeku daraja googu pour uti yàlla ba saara bu mujj min ahli xirrati ñañ nax ci yàlla yonent bi nee na inna min al ilmi ka hayati al maknuni la yaalamuhu illa al ulamau billah fa ida nafaquha fala yunkiruha alayhim illa ahlul xirrati billah mu ne am na ci xam-xam dafa mel ni or guñ lëmes denc ko kenn xamu ko ku dul aarifina billahi suñ ko waxee kenn du leen ko weddi illa ahlul xirrati billahi lu dul ñañ ñax ca yàlla mm-hmm. ña yeggul yàlla yaakaar ne yegg nañ yàlla ña xamul yàlla yaakaar ne xam nañ yàlla ñooñu rek ñooy weddi xam-xam mooy ñooñu njàng ñooñu bind yi ñoom dañu yaakaar soo jàngee alxuraan bi nga firi ko jàng yaa ngi dégg de fiqhu bi risaalaak ñoom xalil nga jàng naxu bi jàng ñoom ihmiraad wuldi bu nag alfiyat ibnu malikin jàng balaaga ba di bayaan maani rek mm-hmm. fi mu ne nii xam nga yàlla déedéet newoon nañ yàlla kenn du ko xam ci téere waxoon naa leen su nekkee ne yàlla dañ koy xam ci téere konoon limaamu Shaafi'i yi du dem ci saybaanul raay yi di uti yàlla yi mm-hmm. mi nga xam ne nee nañ وما أحد كن كوسو في بعد نجاة دجي الخليمة تكو شي كيد بند إلا ولي شافي عليه منة لولو الإمام شافي أمنا شي تيابا نخ لم دي جي اللسان شي شي خم خم خم كو كو خم خم والو زاي الإمام غزالي مين ين ديگنا غزالي غزالي غزالي مين ين ديگ كو كو خم خم واي دفا دم مجي تربيو يجي دون تربيو ها ن ن آه، لم واحد ديگ ينكو ها من فيا خيبة آية مسايا في تلك الأيام ah dayyaana umrana kullahu fil batala mu ne dayyaana umrana kullahu fil batala ñu ndekete bañ nekkee ci téere yi di segg di bind di wérante ci masala yi di xool ndeke ñoo ngi sànq suñ dund ndekete di loolooy xam-xam waaye yoon la jëm ca xam-xam ñun ñu jàpp ne loolooy xam-xam mu ne dayyaana sànq nañ umrana suñ dund kullahu batala ti ci caaxaan rek fa yaa xaybata masaya moo ngi jooy nee ne fa yaa xaybata masaya eh woo naa sama tos ko rek sama perte doxin fii tilkal ayaam ca fan yooya ca bés yooya ma yaakaar ne maa ngi ci dara te booba nekk ma ci dara hmm? limaam Ghazali moo mën a wax li hmm. limaamul eh, yaa ngi dégg de xam nga borom xam-xam yi bëri eh, téere yi ñoo leen kiiraay ba mënuñoo yegg tar bi yu xam yàlla mais hmm. gis koo xam ne macha allah mokkal na tajwid mokkal na alquran téere yi macha allah fànn yi fukki fan ak ñaar yi gën a siiw ci fànn yi ñuy jàng fi yëpp macha allah def ko mokkal masala boo ko indil mu waaye nag fekkee loolu bokkul ak xam yàlla nag loolu ak xam yàlla bokkul cheikh Tidiane nag waxoon na ko ne allahu la yurafu bil qiyaasi irfanuhu bi ma siwahu qaasi mu ne wala bi tawhidin wala bi daftari wa man yaqul bi za alayhi yaftari mu ne wala bi tawhidin kenn du xamee yàlla ci tawhid wéetal ko tawhid bi ñuy jàng tawhid bi ñuy jàng laa wax tawhid wéetal yàlla yàlla sàkk asamaan yàlla sàkk suuf moo sàkk ajana moo sàkk safara moo yónni yonon ci ah moom kenn niroowul ak moom hmm? du lekk du naan amul papa amul yaay xam nga yooyu taw yi hmm. mu ne du loolu nag moo lay xamal yàlla xam nga léeg-léeg nit su xamee loolu rek day yaakaar ne xam na yàlla hmm. ba nga waxee loolu ba pare nag boobu nga ko réeree nag boobu nga ko réeree waaw nu nuróow lenn yàlla nuróow la kenn waaw nuróow la kenn nga jàpp ne xam nga nuróow la kenn nga ne xam nga <laughs> est-ce nga wax bi de mu ne wala bi tawhidin wala bi defteri mu ne deftere xam nga deftere ñun për yi téere deftere lañ koy wax deftere nag arab tamit deftere lay wax wala bi yi mu ne kenn du xamee yàlla ci deftar mooy téere mu ne wa man yaqul bi za alayhi yaftari képp ku ne yàlla mën nañ ko xamee ci téere moo ngi wax lu ko neex rek est-ce dégg nga wax bi benn wali yàlla nee téere dafa dee te yàlla dafa dund mu ne lu dee mënul tegtal ci lu dund waaw téere dafa dee mu ne lu dee mënul tegtal ci lu dund bastaami moo doon wax axastum elmakum mayitan an mayitin wa axasna elmana an il xayi alladi la yamut borom téere yi la daan waxal mu ne seen xam-xam bi jëlee ngeen ko ci ku dee jëlee kooku jëlee ko ci ku dee kooku jëlee ko ci ku dee waaw waaye ñun axas naa elmana suñu xam-xam bi ñun ñoo ngi ko jëlee anil hayyi allazi laa yamut ci ku dund te du dee ba abadan mooy yàlla xam yàlla xam nga maarifa billahi xam yàlla ci yàlla rek lañ koy jëlee kenn du ko jëlee ci téere hmm? xam-xam yi jàng ci téere yi nag téere bi ñuy jàng téere bi ñu tiim nii di ko jàng ni ka ko defa dee na bu yàgg kon ñoo ngi jëlee mbir mi ci ku dee kooku jëlee ko ci ku dee kooku jëlee ko ci ku dee naka naka mhm. def jekk waaye nag xam yàlla moom da ngay jël kurus bi di wirdu saatul faati hmm, jëm ca yàlla am sidqu tawajjuhi mhm. ak ifradul wijhati ilallahi tabaraka wa taala am déggu doo am benn yitte lu dul yàlla kese mhm. di wirdu saatul faati bi macha allah di effacer sa tilimu seetu xol ndax sa xol bi dafa mel ni seetu day tilim yonent bi nee na xol yi dañoo mel ni seetu day tilim fomp leen leen ñu ne wa maa jilaawu lan mooy war a fomp tilim mu seetu xol mu ne zikrullahi tudd yàlla mm-hmm. te tudd yàlla tey macha allah bi ci gën a mën a yeggal nit mooy salaatul fati mm-hmm. nga jël salaatul fati bi effacé sa tilim mu seetu xol jëm ca yàlla ba yàlla def te jël jëlli ci sa xol gi nga xam ne nekk dara musu fee nekk yàlla rek a fi nekk yow yaa yaakaaroon mbir maa ngi fi waaye dara nekk fi lu dul yàlla mm-hmm. loolu nag nga dellu si nag looloy xam yàlla dégg xam nga loolu jëlewo ko ci téere yàlla rek nga ko jëlee yaa ngi dégg nit ki fi tarbiyu nekkul ne benn téere lay indi di ko jàng déedéet dañ lay wax sax tegal fee njàng mi ba nga pare la ngay la nga la ngay def <laughs> kon boobaa tarbiyu xam yàlla boobu ci yàlla rek lañ koy jëlee hmm? moo tax mu ne axastum elmakum mayitan an mayitin wa axasna elmana anil hayyi alladi la yamut ki dégg nga am mu ne euh, yaam يا من تهير في مهامه أمره تبغي الهدى والأمن طول زمان إن كنت تعمل للسعادة والمنى والإز والإقبال دون تواني ومنى لغاية كل قصد آجلا فأعمد إلى المولى العظيم الشان نعم. شيخ المشايخ بهر كل حقيقة ودقيقة أعينها الأغاني نجل الرسول المصطفى وخليفة في الكون طود السر والإعلان ختم الولاية طودها ومناطها قطب العوالم غوصها التجاني العروة الوثقى التي من نالها نال السعادة وارتقى في الآن نعم. وبالغيوب منبأ في سره كهف الأمان وغنية اللهفان آه. maanaa def la bëgg a kii woy yi ma woy nii fii waaye benn borom xam-xam bu tudd abi abi mahdi moo ko woy mm-hmm. daf lay bëgg wax ne soo bëggee xam yàlla rek dawal jub ci Cheikhu Tidiane mm, ak képp ku fi nekkal Cheikhu Tidiane mm-hmm. fi mu ne nag àdduna bi jeex Cheikh Ibrahim Niass moo fi nekkal Cheikh Ibra Cheikh Ahmed Tidiane mm-hmm. ndax soo demee feneen fu dul foofu sax nga ne damaa bëgg xam yàlla dañuy reetaan xay xamoo ko ñun ñun fii xam nga yàlla bi <laughs> ñëpp xam nañ <laughs> yàlla foo ñëw di wax damaa bëgg xam yàlla ñu ne ko ñu ne la xam nga ko xam nga <laughs> ñooñu duñ la xamal waq du chey ilaa yutihi ah bu njëkk ba noonu la woon ndax yoruñu ko woon léegi nag dañuy bañ nga dem feneen nag ñu la bëgg a chaîne nag jox laa yeneen tur yoo xam ne ñoom xamul sax lañ lay turi di dox ñu ne la waaw waaw dañuy tarbiyaate dañuy tar dañuy xam yàlla te bu njëkk ba ñoo doon wax tarbiyu amul xam yàlla amul léegi ba nga xamee ne so ku ñëw ñu ne ko tarbiyu amul rek mu dem uti tarbiyu ca ñooñu tarbiyu tarbiyu xam yàlla mm-hmm. mbir mi di leen commencé déranger nag ndax ñoom mbooloo maa ngi wàññeeku fa léegi bëri ñoom ñoo ngi tuutale mm-hmm. ñu mujj nag ku ñëw rek ne damay tarbiyu ñu ne waaw waaw dañuy tarbiyaate après nga ñëw ñu xool foofu seen turu ñàkk solo amul tur bu ñàkk solo sax waaye nag tur boo xam ne da ngay wirdu fi ba santan doo yegg yàlla ah ñu la ñu sonn sonal la ci mm-hmm. déngax bi dañu sonn sonal la ndax nee nañ ginaar gu mënul boof mm-hmm. <laughs> yàlla xam ne am nañu sonn loolu yëpp bëgg mbooloo la rek yaa ngi dégg de <coughs> wala taku min man tayyafat xuturusuhu bi xaysu staqallat aqlahu wastafazati amr ibn saadi nee na bu sa bu la sa kayit yi nax borom jàng nga borom xam-xam nga jàng nga téere yi waaye loolu bu mu la nax ba ma yaakaar ne xam nga yàlla de amr ibn saadi nee na wala taku bul bokk mukk min man tayyashat xuturusuhu koo xam ne foo yam daan jàng ak duruusuhu leçon yam daan jàng hmm. yaa ngi yóbbu nañ xel ma mu yaakaar ne loolay xam-xam bi xay susta qallat aqlahu wastafazat yu eh, téere yooyu ak leson yooyu ak dars yooyu toog ci jëmmug xelam yaa ngi dégg de moom xelam yaa nangu xelam ba mu yaakaar ne loolooy xam yàlla bëgg dem xam yàlla mu ne déedéet du loolu fa samma waral aqli ilmun ya duq an madariki rayatil uquli salimati fa samma am na fa waral aqli ginnaaw xel xam nga xel moom pour téere yi ñu jàngale di ko jàpp ci xel fa samma am na fa waral aqli ginnaaw xel soo rombee xel xam nga xam nga fa ngay xamee yàlla xel amu fa fanaaw xel amu fa te yàlla nekk moom kese lan la fay xel di doy fa samma waral aqli ginnaaw xel am na fa ilmun xam-xam nga xam ni ya duq an madariki rayatil uquli salimati ya diqu sew na an madariki gaayatil pour xel yi mucc yi jot maqaama yooyu xam-xam googu kenn mën kenn mënu koo jàng ci téere hmm? moo tax nag mu ne abu abu abu daawud at-tayaalisi ndeysaan moo daan wax al iksaaru min haadha al hadis yasuddukum an zikrillahi wa an salaati fa hal antum muntahun téere yi ngeen di jàng ni téere hadis yi su ngeen ci bërilee def leen di kiiraay walis yegg ca zikrullahi ba ngeen yaakaar ne loolay zikrullahi te loolu du zikrullahi da ngeen da ngeen da ngeen yem nangu ngeen li ma wax est ce que dégg nga wax bi de mm-hmm. Abu Daawud Tayaalisi moo doon wax loolu est ce moo tax nag ndekke nit ki bëri na ku sonn fekk dara sonalu ko lu dul njàngam moo tax Cheikh Abdoulaye Dia euh, daan na wax ma nit ku jàng borom xam-xam pour mu yegg yàlla day jafe ɓeya saabu ko gombudi ndi takki e ɓernde he ɓawlini ɓernde nde <laughs> mana gombudi ndi mana encre bam ɗon jangga encre bi moo takka ci xol bi ñuulal xol bi bala moo xam yàlla il faut nga jël di effacé encre googu ndax moom encre googu la gëm ndax encre bi la gëm moom pour moom ah, encre bi la yàlla sàkk asamaan ak suuf xam nga loolu rek doy na kiiraay <laughs> eh, eh, eh, xaaliqu samawatil ard <laughs> xaaliqu samawatil ard alxuraan a ko bind man yàlla maa sàkk asamaan ak suuf loolu rek mën na laa tere yegg yàlla ay at yaa ngi ah fan la yàlla sàkki asamaan <laughs> xalaqa abdullahi cheikh abdul eh, cheikh ibrahim Niass eh, laaj na cheikh abdullahi cheikh abdullahi saaxu mu ne ko yaa abdullahi a taarifu maanaa xalaqa xam nga luy maanaa xalaqa xalaqa sàkk sàkk na mm-hmm. xalaqa sàkk na bi mu ne déedéet mu ne xalaqa bi maanaa kasaba te naka jekk loolu lay firi ci luga xalaqa bi maanaa kasaba mu ne ko naka jekk tamit loolu lay firi ci luga alquran def na in hada illa xuluqul awwalin in hada illa ixtilaaqun illa ixtilaaqun maanaa illa kadibun ilaxtilaaf mm-hmm. hmm? moo tax eh, njàng soo jàngee rek ba mokkal xam-xam ak ah, xam-xam bu mën a doon sax même ci xam-xamu àdduna gi am na ñoo xam dañuy tuddee seen bopp ay intellectuel nit mën naa nekk intellectuel te xamul yàlla yow xamoo foo jógee xamoo foo jëm fi nga nekk fi nga taxaw nii xamoo fa nga ne yow yaa intellectuel xamoo sa awalu xamoo sa aaxir xamoo sa zaahiru xamoo sa baatin eh. ah ana yàlla nga xulli sa bët hmm? in takallama jaara wa in sakata xaara waa ji ne in takallama saa bu waxee jaara tooñ góor yàlla yi ndax moo ngi juum te yëgul mhm. wa in su noppee xaara gëlëm ndax xamul fu mu jógee xamul fu mu jëm kookoy borom xam-xam sànnil xam-xam yi taxañal téere yi nga xam ne yii dañ lay junj nga jëm fa ñuy junj ndax sëriñ Mbaye Niass waxoon na Baye Niass su nekkee ne lu ñuul lii la rek konoon duñ la topp mhm. waaye la ca diggante mbind yi moo tax ñu ñëw ci yow la ca diggante yi est-ce <laughs> xam yàlla du mën na nekk ci téere waaye da ngay dem ci góorug yàlla mu xamal la yàlla yàlla moo ne wattabi sabila man anaabu ilayya mm-hmm. waaw bi toppal soo bëggee xam yàlla toppal sabila yoon man anaabu ilayya ku dellu ci man mm-hmm. faxru diin arrazi ku nekk xam ne faxru diin arrazi mm-hmm. borom tafsir bu mag bi borom xam-xam ci jamono kenn maanaa raw ko ci xam dafa bëggoon tarbiyu xam yàlla moo ñëw ci eh, eh, ci Seydi Najmu Diin al Bakri benn wali yàlla la moo doon tarbiyaati ci jamono mu ne ko damaa bëgg xam yàlla eh, Seydil Bakri najmu diini ne ko laa tutiiqu mufaaraqata sanamika alladi huwa ilmuka sa xërëm gi yow mu ne ko mënoo teqalikoog sa xërëm gi pour ma tarbiyu la soo saa boo teqalikoog sa xërëm bi ma tarbiyu la waa ji ne ko sama xërëm gan mu ne ko sa xam-xam bi <laughs> fi mu ne yow sa xam-xam bi ngay jaamu ndax boo bëgg a gëm gëmoo lu dul sa xam-xam mm. te sa xam-xam bi teguwul na parce que fa yàlla nekk ak fa xam-xam ba nekk <laughs> lii xam bi di wax ak yàlla nekk mm. du yaa ngi dégg waa ji ne ko ma rek mu ne ko bismillah najmu diin al bakri daal di summi xam-xamu faxaru diini arrazi summi xam-xam bi dugal ko ci néeg mu ne ko bismillah tàmbalee zikar ba ba waa ji di tàmbalee zikar rek mu daal di salbu xam-xam bi ba mu salboo xam-xam bi faxaru razi daal daal di génn daw di yuuxu ba mu yuuxoo rek mu ne ko wallaay musumaa gis ku déggoo ni yow moom najmu diin al moo ko mu ne ko naka jekk musumaa gis ku déggoo ni waxoon naa la attanoo ko ndax yaa ngi sa bi léegi nangu nga d'accord nga ne xërëm gi dëgg-dëgg yaa ngi moom ndax damaa summi sa xërëm gi rek nga yuuxu di wax àttanoo àttanoo kon naka jekk mu ne mu daal di ne ko aajaba ni sidd ku kaw a adamu ni faqiqa yéemu naa ci sa dëggu gi ak sa ñàkk naa feq gi yaa ngi dégg ndax lakin anta sitta min maarifina faalam zalika wa anta alamu bi niyati mhm. mu ne ko bokk nga ci suñu soppee léegi ndax xam naa ne ku dëggu nga nekkoon naa feq ndax su nekkoon ne keneen la su ma summee xam-xamam day jéem a wone mbirug naa feqe waaye nag yow wan wane nga ne li nga gëm dem na dootoo mën a ti dem ba nga ñëw di yuuxu mu daal di ko delloo xam-xamam ne ko eh, demal nga dund la nga dundoon waaye nag na nga xam ne bokk nga ci ñi soppee rek ndax xam nañ da nit ku dëggu ci dégg nga lii nii faxru min ar razi borom tafsiru faxru razi ak eh, najmu diin al bakri hmm, ñoo jëflante woon gis nga abul hasan chazeli eh, gis nga moom moo tarbi abdou salam ma machis bi nga xam ne Abdusalaam ibn Masih ci jamono dafa yaakaaroon ni téeréem yi yaa ngi dégg téeréem yi yaa ngi dégg ñoom rek ñoo ko mën a xamal yàlla waaye ba mu jokkoog Abul Hasan Chazali mu xam ne ndekete euh, téeréem yi mën a koo xamal yàlla est-ce que kon nee na heure bi jot na ñu yemale ko fi incha allah alhamdu awwalu daawaana wa axiruha walhamdulillahi min asalaamaaleykum wa rahmatullahi